gis nga réew mi yëpp bu fi dëgg jóge woon ñun dañ fiy jóge mais am na yenn dëgg yoo xamante ne soo ko waxee day touché ñu bari moo tax ma ñëw sa a ñëwaat si yow parce que nee naa la yow mi wane làmb mhm. yow yaay ndaanaan parce que làmb dafa xeebu quoi bu doxee doo ko foogeef li mu yor mais li ma lay wax rek xaalis du suukar de mhm. mais mun na jënd suukar man amaana am ma xaalis de mais mun naa wax nit ñi dégg xam ne lii may wax mun na ne looloo ma indi na naa la ziar la na mën naa la ziar la maa la rew foofu mais keroog euh, dañoo taxaw man ak yow ñu waxtaan ci diir bu gàtt mais la nga wax ci làmb yëpp ñëpp dañ koo rafetlu ñëpp gis ne euh, kàddu yu am solo la ñëpp gis ne li nga wax looloo nekk ci làmb ji lan nga inspiré woo ak lan moo tax nga dëkk géejuwaay mënoon mën faral Balla Gaye ba noppi mënoon nëbb ay défaut am wax ay qualité am mais nga jaar ci digg bi ñëpp apprécier loolu xam nga xam nga Sénégal dañuy digle sangaay ba pare te duñ sangu parfois. Mhm. parce que bu buñ nee làmb nañ fi jële violence rek. kon nangu defet day day tax violence jeex. Mhm. ndax tey jii man su ma bañee defet bi di xeex. wala may wax loo xamante ni kii victoire bi ki moom victoire bi du ko neex. Mhm. kon du dugg si bopp gars yi quoi. dëgg la mais tamit Bombardier dama xalaat ni moom tamit sportif la quoi bu nekkoon beneen réew sax dañ ko war a encourager muy ñibbi. waxuma laa nag mu dëkk Sénégal. di daan di continuer di daan di continuer loolu daf ma neex. Mhm. parce que bu ko neexoon dafay ñibbi n'est-ce pas. Mhm. amaana bu daanoon Bombardier comme li ma ko waxee woon mun na dem ñu jox Bombardier dafet te fekk Bombardier day rakraame ne day sone sax kenn du ko sentir. parce que mhm. baala li mu indi lañu xool rek xoolu xooluñu li Bombardier indi. Bombardier indiwul nit waaye indi na ngor. te laamu ngor la. ñun nag du ñu gën a gore baala daa fàtte ni ñun ay ngor la yar. ay ngor moo koy supporté. kon bu ñu daanee dañuy nangu Balla def nañu jël bu ne. wax na nit une wax nit deux secondes te bi mu daanee nit ñoo ñu ngi dox dañ ko doon damoo. Mhm. kon ñun tamit buñ ñu daanee si ay erreur dañoo war a nangu ne erreur la waaye jël la bu ko defee moom it mu xaw a giif victoire bi mën a neex làmb ji jëm kanam loolu rek lañ ko waxee. Mhm. Euh, keroog ñu gis euh, seen dernier face to face ci diggante Balla Gaye ak Bombardier euh, ñu gis moo ngi nuy suñ suñ papa père Bécaye keroog mu laaj Balla Gaye ne ko bi làmb ji jeexee dañoo gis kenn koo xamante ni dafa dëkk géej ku ñuy wax làmbaloog mais mu gis analyse yi mu joxe mais analyse yi xool nañ ba xool analyse dëgg la mais bala nee na ñi koy wax en général dëkkuñu géejuwaay surtout ki nga xamante ni moo sol costume bi dëkkuñu géejuwaay pikin lañ ko defee te man maa la interview yaakaar naa ñoo ngi ko defee bunt estat Amadou Bari. n'est-ce pas waaw. waaw lu amul seede baaxul. Mhm. parce que yow yàlla defoon na lépp yow la. Mhm. yow yaa ma invité woon buntu Ersat Amadou Bari ñu tefe foofu. ci diggante signature ki nga xamante ni ah. mooy Ndiaga Dollé. ak waaw ànd doole làmb. waaw ñun ñoo ko tegoon maa ngi si biir mouvement bi. Mhm. ay sérif waaw di profité di nuyu Paate. Mhm. ay Ibba grand Gora père ñëpp tout parce que ñun nooñu ñoo yor Géejawaay. dirigeant bu si ne. du nekk Géejawaay rek ñoo bokk ànd. bokk ban écurie nga nekk. nga yore Papa ay Gabaar na bàyyi xel si ñooñu ku leen yor mu ne dëkkul géejawaay na si bàyyi xel. Mhm. ñun géejawaay lañ juddoo. te defe naa bu ñu magul baala baala maguñu de. Mhm. mais gétt gi dañ si bokk duñ ko yàq. parce que làmb kenn du ko yàq man bu ma xamal lu ñaaw si Balla Gaye du ma ko wax. Mhm. parce que après sama xas la fa ma dëkk. moom amaana xamul sax mais damaa cate si ginnaaw rek mais musuma dem sans Balla Gaye musul dem fenn combat te seraani wu ma ko man. te xoolal fi bi mu ñëwee da ne man dëkkuma Géejawaay mais loolu duñ si close Balla Gaye nag la daloon gi la mu defoon Gris Bordeaux mi ngi koy bëgg a dal. muy lan. xam nga Gris do Balla téye na ko fii rëtëf tëtëfee mu na ko yow doo koos combat. Mm-hmm. te combat balaa neex ñu koos ko tëtëf tëtëf. te yow mosoo def tëtëf tëtëf keroog ba ko Balla koree ba mu ko dóoree épercule njox mañ ko njëkk a suy moom giri moo ma romb. Mm-hmm. mais Gris bañ demee këram di ko seeti journaliste di ko seeti da leen a jaawale. Mm-hmm. mais Balla tey biñ ko daanee contre Bombardier jaawale ne ku dëkk Pikine ne ku dëkk Guédiawaye de. daa juum te nga dëkk bi géej daa juum ku yee jël na hypercule de ma xam ko. <laughs> jël na hypercule mais moment bi ngay toog dégg Balla Gaye mu wax loolu te nga doon joxe ay conseil rek naka nga gisee loolu. ak Balla xam na ne su waxee si lës làmb xam naa ko wala rafetlu naa ko bës bi day bari la walla mais moom su waxalee yàlla yow rek xam nga ne Amadou Bari lañ ko doon defee. Mhm. kon yàlla defoon bu doon erreur yow mën nga maa génne. Mhm. tey ji man waa Géejawaay xam nañ ba xam Géejawaay laa dëkk wala dëkkuma Géejawaay. Mhm. bu dee ku dëkkul Géejawaay yàlla na dee kon du ma dee kon loolu jëru tontu dama si gën a kontaan. baala lu mu ma def saf na ma lu mu ma wax saf na ma mais moom it na xam ne li ma koy wax lu leer la. Mhm. mbër njëkk si taxul nga jariñu si. Mhm. mais mbër ak fas ak jeega yem ku leen juddulu mën a xam fu ñuy bañee. mbër fas jeeg. ñoo yem ku leen juddulu mën a xam fu ñuy bañee booy bi da nga koy juddulu si biir kër gi mu nekk xale bu ndaw bu siisee da ngay xam ne daa siis. Mm-hmm. da ngay xam ne booy bii dafa siis. chaque bool day jooy. jeeg bi mooy jeeg bi mooy xale bi fas bi boo ko judduloo bu dee bañ dangay xam ne fas bi day bañ. Mm-hmm. mbër mi boo ko judduloo bu amul fit da ngay xam ne mbër mi amul fit. te baal dama ko juddulu xam naa ko bu baax baal kese mu wér <tsk> no du ne bëree leneen nu dul nii. mais préparation bii li mu indi si contre kii xaw ma fu mu entraîné mais loolu doyuñu ñu si ay supporters lañ. mbër nag bi ñoo ko yoroon. Mhm. bu ñu la ko joxee bu yooyee war nañoo wax nag bi daa yooy. Mhm. boo yafalool la ñu ne merci boo yafalee ñu ne la sa waay jërëjëf <laughs> mais nga wax dëgg ñu ay booy bi la dëkk ku ñooñ ñu bëri dañuy saboté lamb man dinaa saboté lamb kuy saboté lamb day xaañe wala muy def la ne Balla Gaye Bombardier billet cinq mille lu musta am mu ñëw indi boo jooy seen baay ñëw na. waaw waaw waaw waaw. loolu dafa neex. këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng waay ah mu war a rendi rendiwul waaye wax mun a am ay dëkkoo géejawaay loolu méttiwul. ah neexul ci xol de. neexul ci xol da nga yeewoo bi géejawaay te xoolal ba nga daree bëre ba léegi may dagg bi amoo dara loo ma félicité nga ne dëkkoo géejawaay. yaa ngi may wax si biir wax sax na ma stade ko nga ndékkee te añuloo. waay fa ngay ndékkee boo ko ndékkeewul doo dem bala ngay ay. boo teel te jël place doo am place billet 5000 xoolal ni mu feesee xool li ko yàlla jagleel kon ku la siy wax dëgg danga ko war a féliciter ne ko maa juum. Mhm. man nit ma mën a noppi tëj sama gémmiñ mais boo nee dëkkuma fi da nga maa tapas mais dama koy baal parce que bu doon benn bégal sax bégal na ma ko mais man waruma sori ko man. barke arxuraan laa lay waatal man bis bu ma yóbboo Balla Gaye taxaw si ginnaaw yàlla fay ma sama xol ñu ñibbi maa la wax loolu du dara de bëgg. waaye munoo ko yemale ku bëggul. Mhm. mais xoolal yow dañ lay négliger sax am dara. kër gi boo respecté sa baay boo waxee ñëpp ree mhm. boo respecté wul sa waajur boo waxee kenn du la déglu. la tey jii biñ delee mi-temps bu fekkoon ne ay bopp ko wër bu arbitre ne waatee pire Bombardier foo jaay mu bàyyi ko xel parce que ñu ko wër ay technicien lañ man foof laa doon waxee bataille psychologique mais waxewuma comme nga gis Eumeu seen gis kee day am confiance. Mhm. bu gisee ale kee jaaykatu kii bi nu mu tuddee sax borom diwlin gu niin gi. Zador Aziz Ndiaye merci. Aziz mais foofu sax di bëgg naa ñu taxaw fa tuuti. Mhm. ndax dégg naa ki di Balla mu ne. Mhm. Euh, Aziz Ndiaye moo ko daa dàq bëree. Aziz Ndiaye di takk ngemb moom xalaatugul takk ngemb. waaw naka dégg ngeen wax jooju gannaaw. waaw kay ñu ci bari nee nañu Aziz Ndiaye dafa bokkoon ci ñu koy yàqal Balla Gaye génn ne Aziz Ndiaye bi muy takk ngemb. Mhm. moom takk xalaatugul takk ngemb te Aziz Ndiaye ko dàq bëri. waaw kay xam nga loolu war naa àtte combat bi. parce que xoolal pourtant moom mu nangul ne Aziz Ndiaye ku borom ku mën a bëri la ne indi ku xam làmb la ku xam mën na xam làmb parce que làmb hmm. maa ngi nii di ko wax. waaw gars yi di apprécier ne xam nga ko. Hmm. parce que gars yi mën nañ commencer si sa kanam di jàng bëre ba mokkal yow ngay seetaan mënoo mokkal loolu mënul ne. Hmm. te man damay seetaan contact man du ba làmb rek laay seetaan rek dem man chaque jour maa ngi contact man su ma amee semaine seetaanuma contact damay waaw damay am problème il faut ma woo ñaari boo yu bëre def leen vidéo di cassette di def noonu ay tournoi xale sax dama koy tëgg. mais moom daa àtte boppam Aziz Ndiaye fu mu demee ba bëree te kenn yëgut na wax palmarès bi Aziz Ndiaye mbëreel kat waxal ñu mu daan man ku ma laaj Balla gay ñu mu daan ma wax ko ko te man moom laa faral moom moo faral Aziz Ndiaye bu ko neexee mu woy ko man baala laa faral tey bu suba mais bu dëgg jotee bu yoboo mu mare ma bu yoboo mu koj ma dama ko koy wax mooy kan nit la boo ko jeyee bu ëllëgee bu réccu jotee day réccu baala bu doon papaam mi ngi dund am na yu bëri yoo xam ne da koy raxas nañ waxante la fi ne xoolal ñeneen ñi siy wax sax mën naa tax baala du daan parce que man si tribune bi laay toog. Mhm. li ma mën a naan si ban bi mbaam xamul la sa dex ba fas xamul la dex ba mais mbunaat xam na la sa dex ba moom mi naan ba sa ban bi. Mhm. est dégg nga ma man damay teg si tribune bi di dégg lu wax da ngay dégg waaye kii lu mu fiy wut waaye yow kii dañoo yeb loolu rek mën nañoo daan. Mhm. kon neemal na nga doon demee man fa laay waxee xasuma Aziz Ndiaye. xasuma Balla Gaye parce que dama leen respecté mun ñu hmm. bokk géejawaay ma leen xas hmm. mais ñoom tamit dañ bàyyi xel ne man tamit ndaw laa buy dem war a wax si làmb yor ay école yor ay booy di leen tàggat ñëw ma mer rek dugg si làmb déedéet hmm. man dama bokk si làmb parce que damaa yor ay xale di leen tette ñuy xool ci Balla Gaye wala ñuy xool ci ay Modou Lo wala ñuy xool si ay Eumeu Sène wala ñuy xool si ay tafaatin parce que ñooñu ay mbër lañ yow boo amul koy bëreel nooy nooy dokke bu dee ki nga faral rek ngay jox favori kon yow kan la ñuy bëri. dëgg yàlla. mais luy la làmb moom boo waxee dëgg dañ lay classé.